salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi siiwul ci Asfiya yi ak ci Ovision ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ngeen dal jàmm ci seen émission découverte tey ñu ñëwaat ak yéen ci seneen numéro wu euh, découverte ñu ñëw fii tey ci tubaab Dialaw war fi ñëw ci ferme fi ñuy wax ferme Babacar Diop ferme de Babacar moo xam ne mu nekk endroit boo xam ne ñu bëri dañuy jóge fu ne di fi ñëw di xool li muy expérimenté surtout ñu nekk bitim réew tey nag ñu war ko wan Sénégalais yi ñu xam moom mooy kan ak lan mooy liggéeyam ak ban rôle lay joué tey ci jeunes yi ci côté bi côté social côté expérimentation ci wàllu gàncax bi ak ci élevage bi donc ñu ñëw xool si Babacar xool tey naka lay expérimenté loolu lépp ak njëriñam tey ci gox bi mu nekk tey muy Tubaab jalaw ñu dugg xool Babacar mu présenté ñu boppam présenté ñu ferme purement Makhtar. ça va. ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay nangu ziar ngi si jàmm. ça va bien ça va très bien. alhamdulilah bien merci. naka kër gi ngi si jàmm. naka animaux ñu ngi ci kawam di góorgóorlu. ah naka garab ñu ngi ci kawam eh, di ko jéem a jëmmal. ndax am jëmmal ko jafe mais ñu ngi ci góorgóorlu lu bari. yàlla baax na yàlla baax na. très bien merci. ñu ngi lay bàyyi tey nga présenté wu euh, euh, ñu ngi koy rafetlu et puis di la remercier bi nga ñu euh, joxe tey

mu joxoon na ko wér tellement bu nga xamante ni par rapport akay moroomam ñi mu maaseel da nga gis njàmbaar gi nekkoon ci moom pour wax ne la kenn rek li gën ci àdduna mooy suuf ak gàncax. Mhm. voilà loolu bokk na ci li gën te donc loolu moom moo tax à ce que maladie defar.

leg la bu ma bayil euh, leg bobu ma war ko non seulement jëmmal manam té flambo bi mu baña daanu samay loxo euh, ba ma war ko mëna jox sama ay doom sama ay doom war ko jox seni set té ñu bañ ci am ben jafé jafé inshallah mhm. mënañ découvrir tay li nekk ci euh, biir voilà mënañu découvrir li nga xamanteni mo nekk ci ferme bi tay mhm. Euh, euh, ci euh, la ferme de Babacar pratiquement bo ci bo fi ñëwee. Mhm. dafa nekk ferme bu nga xamanteni ferme intégrée la. Mhm. suñuy wax tay ji ni en fait ferme intégrée. voilà ferme intégrée ci ci ci manam ci Sénégal peut-être bëriwul ay ferme intégrée yu femme ferme la bo xamanteni dañuy bay dañuy sam et puis dañuy dundu dañuy dundal manam tay ji ni so xolé ba xol gis nga fi ni yaa ngi gis ñu ngi fi am. Euh, euh, euh, waaw ñu ngi fi am ay ganaar yu nga xamante ni c'est des poules d'ornement boole leen nag ak ak lu nga xamante ni lu xaw a jafe tuuti maanaam ñu jël njombor di ko boole ak ak ganaar ci suñu loolu boo ko boo ko waxee pratiquement ci ñi nga xamante ne éleveur lañu dan naan déedéet lu tax loolu voilà donc c'est pour montrer rek am njàngat lañ ciy jëlee mhm. ak njàngat mu nga xamante ni tey dina tax à que nit ñi xam ne li ñuy wax naan voilà de sa jikkooy animosité ji nii loolu amul maanaam même mala yi sax mën nañ cohabiter mën nañu cohabiter ensemble c'est pour montrer aux gens que su fekkee ne que neen sëgam mala yi ñoo mën a dëkk te ñu bañ a lorante ñoom seen biir asamaan ñun doomu aadama yi dans ce monde actuel surtout ce qui est ce nga ni Sénégal et puis nous ngi jàllee ñi nga lor nañ ci ci ay ñu di lor ñi avons lor Nous nous sax nous lor et que damay wax ne que nous ci nga nous Nous ci la symbiose entre la nature et l'humain mm-hmm. parce que je vois que nous gens, Euh, naax wala nit ñaa ngi dugg ci gaal gu nga xamante ni gaal googu du lu ñuy xaar ci doomu aadama fu mu toll nii bopp yi jaxasoo nañu nësax nañu. problème bari na problème bari na te man comprendre naa jàpp naa ne que ne la meilleure thérapie bu ñu mën a am. ci suñu Sénégal ci suñu àdduna mooy ñu delluwaat ci li maam. c'est la nature la nature li maam bàyyi woon. maanaam cosaanu mbay ak sàmm. loolu dafay doon li nga xamante dina ñu dimbali ñu mën a jëm ci kanam ci suñu dundin. macha allah voilà macha allah ñu découvrir yeneen mbokk yi voilà vraiment euh, lii rafet na trop. ngi dem euh, pratiquement ci euh, ci suñu ay Autriche donc Autriche yi pratiquement.

dañu am ferñent yu nga xamante ni alug euh, aliment yu nga xamante ni pour gàncax uh-huh. vraiment dañu koy jox euh, euh, day da maanaam dañuy jox dañuy jox doole gàncax te vraiment loolu non seulement yar leen ñu développer mais aussi tamit wan wan waaw maa ngi ciy commencé produire et d'ailleurs même at mii moo nekk seen at mu nga xamante ni mooy première année de production non seulement loolu mais xale yi nga xamante ni dañu fay ñëw di koy gis ay dessin animé di koy gis euh, euh, maanaam dans la vie dans la vie virtuelle qui télé yi et que duñu bëgg xale yooyu à ce que ñu koy gis ji gis jëmm gi exactement mm. et d'ailleurs même loolu moom moo tax sax ba ay écoles yu bëri dañ leen di recevoir ci cadre visite pédagogique des journées de classe verte à ce que ñu ngi ci woo bép école bu nga xamanteni nam na ci euh, bëgg na ñëw am des journées de classe verte et que paré nañu pour def que te sa tey jii école française ñu nga xamanteni comme Jean Mermoz ak yenen école donc ñu ngi def ak ñom lu mel non mais genre partenariat mais pourquoi pas aussi les écoles sénégalaises les écoles euh, publiques et privées ñu daal di ñëw indi xalé yi xalé yi jàng yaa ngi dégg way jang benen façon jàngeen donc mën nañu jang pas que si classique classe mais mën nañu jàng aussi si biir ferme dina tax parce que xale yi am aussi tamit beneen xeetu dooguma la mais loolu day tax sax ñu benn culture générale ci par rapport à tout ce qui se passe dans la nature exactement cette culture générale là elle est très importante mhm. parce que tay jii dina tax xalé bi xam parce que tay li gën graw moy mooy damay dajeeg xalé ndax est-ce que xam nga gàncax bi nga xamante euh, gerte gi nga gerte hmm. ne ma pourtant dans une zone nga xam mais du donc ce que veut dire que ne xale bi dafa voilà la source ca comme pour exactement lan en fait euh, gàncax ak lan moy njariñu yaangi ngi dégg yi nga xamante manam maanaam à la source dañ ci war a parce que dina tax xalé bi xam lu mu xamuloon ci biir njàngal voilà en même temps aussi tamit ma ngi la don ma la don bëgg présenter aussi gis nga genre fossé bi ngay gis ni fossé bi c'est une centrale de gaz comment ça voilà c'est une centrale de gaz bu nga xamante ni tey jii dañu ñu permettre à ce que ñu mëna euh défar jusqu'à 12 heures de gaz par jour dañuy produire gaz fi dañuy produire gaz fi

c'est vraiment c'est vraiment possible et vraiment c' fiable. mais est ce que tey logistique boobu am nga ko pour jéem ko jël gaz bi mu nekk nii nga transformé ko dugal ko ci ay bouteilles. mais voilà donc euh, actuellement nii mon logistique pour dugal ko ci ay bouteilles mais li ci gën a sax neex mooy gaz boobu noonu elle est transportable. c'est du gaz madame c'est pas du gaz euh, c'est du biogaz. c'est est euh, maanaam c' du gaz bu nga xamante ne mën nga ko def ci saak. gaddu ko jël vélo di ko pédalé pour yobbu ko fanga bëgg yobbu dem ca wañu nga wara tek donc duwal ko tek ko fenn non wax ma la sarté sa gaz tek manam ah. brancher sa gaz dal di tal dal di ñew nga atay ci wala nga togg ci sa manam sa togg voilà donc euh, lu lu nga xamanteni la lu bien possible comme lima la doon wax sank suñu biir waxtaan ah. donc euh, lenn lu amul lenn li nga xamanteni manam bakkanam jeex na ci aduna amul lu dul li nga xamanteni mom la yalla jeexal bakkanam donc lépp lu nga xamante ni jeexal nañ ko maanaam utiliser nga ko ba mu ba nga xamante ni jàpp nga ne jeexal na loolu mën na amaat beneen dund bu mu joxaat beneen gëdd ci beneen wàll ci wàllu agroécologie. macha allah voilà di leen wax ni kii mooy Babacar Diop macha allah di wax xam-xam bi leer na rafet na. fii.

ak juroomi weer jàpp juróom-ñaari weer. ban race la euh, kii. brune des Alpes la. brune des Alpes voilà donc euh, nag la bu nga xamante ni donc euh, meewam ràññee nañ ko lool ci meew yi ci àdduna bi. Mm-hmm. meew la bu nga xamante ni pratiquement pas mal de de de de produits euh, pratiquement de, de, qualité de beurre et de lait dans le monde Mom la ñuy utiliser mom la moom lañ Madame defaree maanaam ay bëgguma tudd ay tour parce que voilà waaw day marketing mais ñoom ñooñu nga xamante ni am nañu maanaam way wu sori ci cadre meew beurre ak yooyu donc moom mi bokk na ci donc pour utiliser cette uh-huh. ci transformation donc de dérivés ci jëm ci wàllu lait ak les dérivés de maanaam du lait et en même temps aussi tamit nag la boo xamante bu dawal la aussi voilà amna dayo dayoo ba pare nag la bu nga xamanteni buñ ko xonté ni ci war donc mën na dem donc ba def ay euh, ay manam ay ton yu nga xamanteni ton yu bari lay doon. macha allah voilà voilà. voilà te nag la boo xamante aussi tamit à production aussi tamit de ci walu mew mën na dem ba di produire au moins minimum euh, euh, di minimum entre 20 euh, maximum mën produire pratiquement ba. ba jusqu'à 30 litres de lait par, jour. jour. S'il est bien nourri, waaw. S'il est bien nourri, mën na dem mën dem ba di produire loolu. pratiquement euh, mom lañ fi woon moom amoon nekkoon na fi ak yenen euh, juróomi moromam. Mhm. mais malheureusement en fait une négligence en fait des employés fait à ce que yéen on les a perdus sous sous négligence mais euh, bon yalla baxna parce voilà voilà donc ce qui veut dire que c'est les risques en fait de l'élevage comme li may faral di wax. Mhm. dafa am lu nga xamanteni dafa bokk ci élevage. manam bo déggoon mag ñu dem ñu doon yar li ñu doon yar démb donc li mom motax te li ci tax ba ñu diko yar donc lolu du fi jóg li fi dul jóg nak euh, lu lu si jiwul ju fa la ca kanam jugu fa voilà donc loolu olof di wax <laughs> donc ce qui veut dire que ne donc nañu ci gën di euh sam bay ak dundé voilà loolu moy aduna voilà loolu moy aduna hmm. légui à part loolu yi yan xeetu yeen xeetu oh, voilà li ay éme mhm. euh pratiquement éme yu nga xamanteni ni donc ñom sen origine Australie la Australie voilà donc c'est adapté wu bu baax waaw ngi adapté wu bu baax fi euh, pratiquement c'est des espèces qui sont d'une manière général trop agressif. Mhm. et que bo len xoolee gis nga yang len leen di mhm. donc defuñu defuñu defuñu dara et tout cela ils sont apaisants mais d'une manière générale ñoom ils défendent bien leur territoire de ay picc la yo nga xamanteni ni. Mhm. ñanaaw la nga xamanteni ñom vraiment ils sont ils sont ils sont tenaces. dañuy dañuy dañuy dañuy euh, défendre sen euh, voilà voilà sen territoire mais ñu ngi leen di de telle sorte que ñu mën habiter adapté ou ay habiter aussi manam ak le personnel habiter aussi en fait ak les gens yi nga xamanteni c'est des gens qui sont étrangers donc de, de la ferme. mais qui faucon là? Wow, qui faucon là? faucon là, bon, maintenant c'est un jeune faucon. Mhm. Euh, bi mu fi ñëwee yàggul lool. ñu ngi nekk fum tolni climaté en ce moment. donc koy da koy euh, non importé wu mais en fait dañ ko sam ben kii moom ma ko andil pratiquement dafa defoon fausse route certainement. donc après par la suite mon nekkoon en situation de faiblesse. Mhm. d'alimentation et tout cela bi ñu ko bi ñu ma ko indilee nag donc ma waroon ko joxaat doole énergie. donc voilà defaraat ko moom laa nekk ni di ko defar nii. Hmm. di ko acclimater di ko en même temps aussi di ko alimenter pour mu gën a am assez de force. en même temps aussi bëgg ko euh, tranquilliser de telle sorte que ne. li nga xamante ni donc maa ngi gis sama mbokki naar yi di ko ci def. waaw di ko di ko dressé. bu muy di ko dressé ba muy dem di naaw di ñëwaat donc bëgg defal loolu ak moom. incha allah d'ailleurs ça sera première expérience bu may def ak. ak Fokong euh, ah, voilà ak Fokong yi voilà. macha allah yàlla yàlla motali ko. amiin allah amiin incha allah. waaw ñu xooli

fii ci mooy laboratoire bi. Hmm, voilà en quelque sorte. fii mooy la fii mooy laboratoire verte. Euh, si laboratoire verte bi nii pratiquement soo xoolee ba xool euh, pas mal euh, yu nga xamante ni ci wàllu ñax ci wàllu arbuste maanaam ci gàncax bu gàtt boo xamante ni espace botanique. li nga xamante ni moom lañ koy wax en quelque sorte hmm. boo xamante ni lu bëri ak yenn yi nga xamante ni ci tisane yu ñuy defar ñun ñoo koy bayal suñu bopp ba nga xamante ni tisane yooyu en fait dafay doon lu nga xamante ni dañuy baax ci wàllu wér doomu aadama maanaam dafay améliorer dund ni doomu aadama lu mel ni comme ñiy dimbali ñi ñi nga xamante dañuy sonn ci wàllu euh, euh, feebaru sucre comme luñ koy wax diabète ñu nga xamante ni donc dañuy planter ay ay ay espèces yu nga xamante ni dañ koy transformer def tisane ba nga xamante ni dana leen mën a amal dimbali pour mu wàccee seen taux de glycémie ba nga xamante ni ñooñu dinañ mën a am dundin bu gën pour ñu voilà en même temps aussi tamit euh, dinañuy euh, dañuy jéem a améliorer en fait ay variétés uh-huh. comme ça ay variétés lu jëm ci wàllu limon voilà li limon la boo ko gisee nii ak tuutaayam da nga naan mais comment ça nu mu demee nii uh-huh. soo xoolee ba xool gis nga limon bi ak ni muy tuuti yëpp voilà da ngay gis ne que ne euh, euh, pratiquement tuutiwaayam. terewu ko waaw terewu ko am ndox. voilà tu vois ba paré ak centre bi mu am euh, dafa am centre bi nga xamante c'est un centre raffiné. vraiment vraiment raffiné. limon bi mi ngi tudd combava combava c'est une variété bi nga xamante ni elle est elle est vraiment magnifique. qui mm-hmm. bo ci am au moins ben dom le matin ay une cuillère de miel do am une une manam do am des difficultés cardiaques voilà euh, tu n'auras jamais en fait euh, ben, comme ça un jour rek problème cardiaque voilà une arrêt cardiaque. Ah, non non non non cuillère de miel avec ben citron comme ça le matin. Ça va faire vraiment beaucoup de bien. Et en même temps, nous avons assez de tonus naturel. Tu n'as pas besoin de faire un truc qui euh, est euh, pas naturel. Voilà, c'est pas naturel. En mom, si tu as ben, ça peut, vraiment te booster mm-hmm. et que tu le dimbali en fait euh, à ce que ce, ce, ce rythme cardiaque soit équilibré et tout cela. Voilà. Les filles, il y en a qui ont fait garab nga fi expérimenté yoo xam ne tey jii nañ Sénégal wala amu fi et voilà comme donc euh, comme les souvent, souvent comme je le cadre euh, comme pomme. pomme wow. voilà déjà en fait euh, déjà bi suñu pomme bi en phase de production déjà. vous voyez. Oui. nga donc. tortor quoi voilà fum tolni mu tortor donc mm. ak a ah. sur tortor dafa am lu nga xamanteni euh, pomme en Europe bu fekkee des euh, produire d'accord. accord dañuy wax ne que ne saison zone bi sedd lay produire et tout cela C'est exactement ça mais pomme amul ben pomme bi produire moment ba muy sedd. moment ba muy neige. amul pomme pour nous produire il faut que neige bi Bon, ba mu notre naaj di génn si la pomme bi di commencé di excité wu. di di génne floraison commencer def la production. te balaa muy l'ol di am da ngay gis ne que ne bu seddee ba pare da ngay gis ne que ne xob yëpp day dañ bi sedd waaw day day rañ te pomme toll nii actuellement nii su ma su ma ko bëggoon a euh, stressé ba mu def une production ni laay def damay ñëw j'enlève les feuilles carrément su enlever les feuilles si je repasse dans moins de 15 jours moins de moins de 15 15 euh, jours dama ñëw fekkaat ay floraison yu baisse, mu commencez de fleurir commencer à fleurir à germiner parce que moom en fait cela la maanaam loolu daf koy stress loo te stress boobu noonu ma def noonu moom à ce que excité à la floraison une partie bu nga xamante ni moom la ñu bëri peut-être ñenn ñi xamul mooy en fait l'adaptation des euh, plantes yu nga xamante sont originaires de l'Europe yu nga xamante pratiquement lu comme ay pomme kaki. acclimaté donc dafa am lu nga ambiance sous-racinaire cette ambiance sous-racinaire pour le créer dans une zone qui est aride et qui est dans une zone comme euh, l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Sénégal, il faudra le créer. Pour le créer, nous seulement, vous avez vu, on a créé une ambiance climatique mais c'est pas ça ne se limite pas euh, euh, que sur l'ambiance climatique mais dafa am lu nga xamante ni ci nekk mooy si ambiance sous-racinaire ambiance sous-racinaire boobu nag lan moo koy mën a gën cadré pour ma maanaam glace la glace bi transformé wu en ndox c'est sa lu tax mu transformé en liquide parce que naaj bi moom moo quand jam bi ko naaj bi jamee mu fondre bi mu fondree mu elle bi mu wàcc ci reen la wacc donc lu wacc bo mu wacc reen bi ak fraîcheur boobu non moy def l'excitation sous manam sous racinaire à ce que mu créer la floraison la même chose si on le fait on aura les mêmes résultats. macha allah voilà maanaam su ñu amul lolu man nañu am glace wala ndox bu sedd di ko arroser pour l'excitation après l'excitation après la production. macha allah voilà li ngay wax ni manam liggéeyu botanique la. manam loñu wax botaniste. botaniste effectivement waaw mais yow tay li ni foko foo ko jàngee lii. voilà euh, tey jii nii man na la wax ne que ne amul ben université au monde bu nga xamanteni ni wala une école dans ce dans ce monde bu nga xamanteni ni à part sama école mam bu ma mhm. et que d'ailleurs même euh, je je me rappelle d'une anecdote ben belge ñëw na fi ben journée mais mais monsieur Diop euh, je voudrais savoir si ban université nga génnee mané que bu fekké université la génnee peut-être sama université mam ma nekk mu ne ma ah bon kon sa maam dafa am université ma nekk waaw su ma yaboo ne ma nekk université la parce que c'est une vieille école. c'est

seen dëkk ni mu neexee suuf si ni mu et tout cela mënuñu fa réussir len ci ñun genn wàll gu ñun lu def te benn te Congo il fait cette fois la France et Congo moom kese mën na nourrir les deux tiers de l'Afrique et que ñoom liggéey ñu sax lu nga xamante ni mën na ko jëmal donc moom loolu moo tax mu ñëw pour jàng si ko tey jii nii ñu ngi encadrer au moins minimum minimum au moins entre euh, quatre-vingts à cent trente étudiants par at bu nekk ñu nga xamante ni di leen di taxaw dimbali leen ba nga xamante ni dañ bind wala ñu encadré ba ñu def seen master wala seen licence ci ci ci wàllu agroécologie et tout cela ah, et que ñu li ñu koy def amul benn ci bu nga xamante ni benn université bu nga xamante dina yëkkati dara nafa wala enveloppe wala yenn yaa ngi dégg dañu ko indil non non non mais dañu koy def parce que c'est une façon ñun c'est le partage exactement de partage mais non seulement loolu lañu wara mëna dimbalé suñu ay ndaw rew mom motax dañu bëgg est-ce que tay ñun suñu ministère ministre de l'éducation wala ministre de ministère de l'agriculture mhm. est-ce que ñoon tay am nañ ay ay approche par rapport ak yow li ngay def ak yooyu ak par rapport ak aux universités qui sont là aux étudiants pour ñu ñëw jëma a gëstu un peu ci li ngay def nii malheureusement gisaguma ko hein sincèrement parlé. mais lo xamni ne Europe ñoy ñëw fi di indi ay étudiants. wala sous région bi. suñu dëkk pour indi pour expérimenter euh, en tout cas il y a quelques écoles supérieures ñu nga xamanteni par le biais en fait d'ailleurs même je salue euh, Madinatal Natal euh, de passage. Nous il a pris les gens de l'université de la faculté euh, des sciences euh, euh, de l'environnement durable de l'université de Dakar Nous ils font leur évaluation chaque promotion chaque sortie de promotion ici à la ferme

sa ay ndaw réew tey ma wal la ci ëllëgu réew te ndaw réew yooyu tey jii nii bu ñu defee ci ñoom xam-xam bi war ci ñoom dinañu doon tey jii ni ay ndaw yoo xamante ni mën nañu concerné mën nañu jàpp ci ñoom jafandu ñoo xamante ni ay mag ñu ñuy dencal ëllëg ñooñ seen i sa dara la te tamit lenn mu ngi ci dunduñ bi ñu dundu léegi si jamono bi ñu toll amul benn réew ci àdduna bu defaru sans mu am une autonomie d'économie alimentaire. c'est l'agriculture. l'agriculture la base. Mm-hmm. et que lolu tey jii on donne l'exemple parce que tey jii nii ci mang ngi la ko wax sank ci période pandémie bi voilà mhm. ci période pandémie bi gis nga ne que ne euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées mhm. et que lolu on l'avait dit pratiquement il y a dix ans ci ginnaaw mhm. et que pas mal de nos amis en fait ne croyaient pas à ce que luñ ñu doon wax mais tey jii bu ba ci période bobu noonu tay amna ben étudiante sénégalais qui vit en France en tant qu'étudiante elle a écrit sa master moom la defee master ci loolu la ko elle a eu une mention très bien sur master parce que man la et tout cela interrogé mais tout cela c'est ça qu'elle a écrit et c'est ça qu'elle a présenté elle a eu une mention très bien pour ça macha donc kon ñu ngi lancé appel vraiment aux autorités mhm. au ministère de l'Agriculture, agriculture ñu vraiment gestu bërëb bi gëstu xam-xamu Babacar mu mën ko partagé ak étudiants yi mhm. euh, tey lii euh, beneen pommier la maanaam voilà lii voilà les pommiers là, livre les pommier là, lii aussi euh, kaki là en fait euh, poirier la du voilà l'i poirier là. donc euh, pratiquement ce xoolee ba euh, vous voyez donc de l'indef, en fait à moitié de truc. ci ci benn wàll ci ambiance climatique. ak Ben, wàll bu nga pour naaj bi di dal seen kaw parce que dañu ko soxla ñoom. Ah, voilà ah, ah, euh, atmosphère exotique bi quoi. exactement cette atmosphère exotique dafay bokk lu nga xamante ni dafay doon li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom mooy gën ci ñoom. Mhm. parce que loolu moom mooy li ma la wax noonu sax mooy créer en fait cette ambiance microclimatique sous-racinaire bu nga xamante ni moom mooy tax mu jëmmal leen ci ci maanaam ci wàll tey jii ni soo xoolee ba xool pratiquement de l'autre côté ñu ngi fa am kaki. voilà ñu ngi am euh, kaki kaki bi moo nekk nii mu ngi ci période mu ngi ci période donc. Euh, germination mu ngi mu régénérer en fait commencer di génne voilà di génnaat Donc, donc, donc à l'issue de lii da nga gis après mu commencer am ko commencer def floraison et tout cela li c'est du citron caviar citron caviar voilà le citron beneen xeetu limon la le citron caviar en fait le caviar c'est ay nenu jën la jën la boo xamante ne. caviar nenu exactement li nak euh, citron bi c'est comme ay nenu jën la am ci donc soo ko soo ko soo ko ubbee toj ko da gis dafay def comme ay neenu jën donc dafay def comme ay bulle hmm. bulle yooyu noonu donc citron la bu nga xamante ni cosaanoowul fii ci suñu réew maanaam une partie de France sax bu ñu koy jënd sax États-Unis lañ koy dem commandé ji ko États-Unis ñoom aussi Chine lañ koy dem utee ji euh, variété la bu nga xamante ni pratiquement euh, ñu ngi koy euh, ñu ngi ñu ngi multiplier di ko briser et tout cela kilo bi dafay dem pratiquement entre 100 cent euros. Mhm. dem ba jàpp ba ba euros donc ci ki nga xamante ni maanaam moom mooy. Mhm. moom mooy moom mooy limon bi. et en même temps aussi tamit te li ci gën a yéeme moom ci àdduna y' a plus de 270 variétés ou agrumes limon yu am au Sénégal on a que pratiquement on a même pas so xoolee ba xol ñett. et que waaw et que lool motax une bonne partie maa ngi jéem a nous nga xamanteni ak ñeneen ñu melni man di jéem indi li nga xamanteni manam moy c'est ces masses là ces variétés là à ce que ñu mën ñëw voilà tas ci euh, tas ci réew mi mhm. tas ci dëkk ba ñu xamante dinañ ko mëna euh donc euh, euh gëna jallalé ba paré non seulement defar ko ba mu am njëriñ ba ñu mën di jaay wala ñu mën diko jox ñu nga xamanteni dinañ ko utiliser en fait ci seen ay togg ci seen ak dundin de tous les jours et tout cela donc lool mo mot à ce que fep fu ñu dem ci aduna dañuy fexé ñu jëlé fa lo xamanteni jiw la loo xamante ni espace la bu nga xamante ni amul suñum réew ñu bëgg def ci suñum réew parce que ñu naan maanaam bu ñu waxati ne que ne réew moom kese rek la am mais Sénégal aussi tamit am na cër li muy nekk réew mu ndaw yëpp mhm. mais réew mu mag la ci wàllu mbay mais réew mu mag la aussi ci baal ci wàllu ay borom xam-xam yu nga xamante ni donc war nañu au moins jox suñu waar ci li nga xamante ni moom moy tax à ce ñu daal di mën a avancer donc

gis nga fële sele fële lépp lu nga xamante ni ci wàllu euh, naana la ak yi wàllu herbe yi nga xamante ni moom la ñuy préparer pour tisane yi ngay def exactement donc fële mooy une partie bi nga xamante ni foofu la ñuy bàyyee tout ce qui est tout ce qui est xeetu euh, euh, xeetu xeetu xeetu xob bu nga xamante ni moom la moo lay transformé moo lay transformé donc pour di ko def maanaam des tisanes pratiquement li salade la li ban variété salade la salade aussi am na variété voilà donc kii salade bi en fait salade frisée frisée la euh, pratiquement donc boo xoolee ba xool salade la bu nga dans le marché il est trop prisé. Mm-hmm. actuellement donc mom lañuy ñuy moom la ñuy euh, quoi mom lañuy bay fi donc bo xolé bo xol ni ci wétam mm-hmm. donc euh, ya ngi gis ñu ngi def ben pépinière chou. pépinière voilà pépinière chou donc pour wax ne le que ne c'est pas que comme li ñuy wax nit ak morom. waye gantax ak morom gàncaxam man nañuy dimbalante donc so xolé bo xol gis nga bo xolé lool mo waral ñu def ni ben ambiance bi nga gis ni nga gis euh, papaya garabu mango euh, voilà corossol nebe nebedaay papaya hum. euh, def aussi ay ay fleur ci wet gi hum. ainsi de suite donc lolu ñom ñep kenn ku nek hum. am nga loy jox sa morom ci ndimbal am na nga rôle rôle bi nak manam moy ki mom mën joxe phosphore ki mën naa joxe soufre ki mën joxe phosphate kii mën naa joxe lu nga xamanteni c'est une manam loolu ñuy wax en pollinisation ki mën naa jël ci ki jox kale kii mën a jël kële jox kii donc lolu non yëpp soko bolé da fay don li nga xamanteni da fay créer ben harmonie bu nga xamanteni mom moy tax à ce que nature di am valeur lolu mooy waral yaangi ngi dégg nature bi di jox non seulement valeur bi mi am mais di ko jox doomu adama doomu adama di dundu dundu bu sell voilà aussi on voit les les systèmes d'arrosage il y a y a côté goutte à goutte bi voilà aussi il y a ben côté bo xam da ko lonk ci kaw exactement exactement donc euh, so xolé ba xol pratiquement euh, damay wax ne que ne dafa am lu am solo ci aduna manam euh, xol l'observation mhm. ça ça fait beaucoup de choses mhm. ci sama aduna li ma gën a ci aduna moy observation parce que sank yaa ngi may wax ne ma que fan nga jàngee mhm. ma lay wax ne que ne ñi nga xamanteni les premiers ingénieurs qui ont créé n'ont pas été dans des universités pourquoi les gens croient que oui tout ce qui doivent apprendre ou soit faire apprendre des choses à des gens doivent aller à l'université. Non, non, non, pas forcément. Parce que les premiers ingénieurs qui ont créé les avions, les aéronautiques et tout cela n'ont pas été dans des universités. Si nous sommes des jardins, des des garages, de créer, de faire du hall, de créer une petite prototype. Mhm. Essayer maintenant cette petite prototype, nous devons une grande prototype, euh, madame, améliorer le prototype, une grande chose. C'est comme ça qu'ils ont bâti en fait leur projet.

d'aller créer ces micro asperseurs là parce que soo xoolee ba même dans les immeubles dans les grands immeubles actuellement soo xoolee ba extinction d'incendie incendies mm-hmm. moom nga gis moom la ñuy monter sur notre harmonie je me suis dit que ne su fekkee ne mën naa may sa mën naa mën fay donc war naa mën a voilà war na mën a dimbali tamit eh, gàncax bi maanaam exactement pour ñu développer loolu moo waral ma yaa ngi dégg ma am xalaat boobu yaa ngi dégg ba dafay aspecteur donc aérienne. macha allah à part à part euh, les euh, en fait ñun lépp la exploiter pratiquement ci diggante. fruits ak légumes. Hmm. soo xoolee ba xool pratiquement yaa ngi gis ne que ne. Euh, li tomate la euh, tomate là, yaa ngi gis ne aussi les fraisier la. waaw fraisier voilà yaa ngi gis. fraisier fraise fraise waaw bien sûr fraise. ah ouais? Euh, mais fraise man je pensais que ci ay serre lañ koy bay. waaw loolu la ñu bëri foog ne ci serre kese lañ koy mën a bay. Ah. mais mën nañ ko bay fu nga xam ne mais daa mel ni fële la gën a yaatoo. waaw fële la gën a donc li nga gis ni li soble la bu nga xamanteni donc soble bi ñu koy euh, déparal pour mu mën a dem donc daal di jóg pour daal di daal di dem ban euh, variété euh, bi rouge la oignon rouge la mhm. oignon bi nga xamanteni en fait c'est le rouge violet pratiquement mhm. oignon la bo xamanteni so xolé ba xol donc pratiquement da nga gis ne ne que ne ci waxtu wi ñu ko jëmbat ni mhm. waxtu la bo xamanteni pour nga def ci oignon sax da fay a difficile touti parce que yaa ngi jub si yaa ngi jub si nawet bi te donc moom dafa nekk dafa nekk lu nga xamante ni pratiquement soble dafa xaw a fiir tuuti ak ndox mu ak ndoxu nawet. parce que ndoxu nawet dafa xaw a am acidité. Mhm. donc acidité boobu tey jii nii dafay tax à que yaa ngi dégg euh, euh, benn xeetu gàncax yu bëri yu nga xamante ni dañuy dañuy euh, dañuy dund lii maanaam pratiquement dafay xaw a métti si ñoom parce que dañuy dañuy puusante. pour wesso li donc boudé gantax bu nga xamanté day tortor donc euh, bala muy taw so bëggé gantax bobu recc ci nawet bi donc bala muy commencé taw dafa wara fekk gantax bobu di tortor mhm. nga tax gàncax boobu su tootooree période bobu noonu donc si lay doon lu nga xamanteni dina gën ci mom ci euh, manam ci avancer dina gën ci mom pour mu defaru quoi pour mën donc euh, pour mu baña am ben rupture ci diggante bi quoi. voilà voilà. aussi système d'arrosage bi ñu gis ni goutte goutte la. waaw exactement tey ndox fa fa muy jógee fa la koy puiser tay voilà man donc euh, tay ji ni comme on dit une ferme intégrée doit être doit doit être une ferme indépendante ferme intégrée beaucoup de déggee qui koy wax. ferme day mënal boppam lépp day donc aujourd'hui cette ferme intégrée à 50 indépendant. donc euh, aujourd'hui suñu nous ba xool donc euh, madame on est indépendant en eau et d'ailleurs même euh, si indépendance boobu tey jii nii dañu et ñu ñëwee fii. dañu gis ne que en fait la la population a vraiment des soucis ils ont besoin vraiment de l'eau et qu'on a jugé important, important, vraiment important, et de, capitaliser en fait cette manque en nous, à ce que nous, nous allons mm, mm, euh, pas nous nous, mais nous nous nous nous, nous ba nous dundal de ce fait à ce que nous pratiquement so xolé ba dans le village y a plus de pratiquement je pourrais dire euh, y a plus de 250 femmes qui nga Euh, dinañ leen jox ndox bu sell amuloo bu ñu soxlawee fóot bu ñu soxlawee naan bu ñu soxlawee togg bu ñu soxlawee euh, sangu pratiquement amul kenn ku nga xamante ni dina génne cent franc pour sangu naan fóot yëpp yaa leen fournir ndox lépp dañuy ñëw root seen paan yóbbu seen biir kër def seen utilité ménagère de tous les jours alhamdulilah amuñ ci lenn luñ ciy yaakaar lu dul yàlla suñu borom moom lañ ci yaakaar mu fay ñu ndax fayu doomu adama peut-être ndaxam mën naa bëri waaye ci poos ak la mën a yem mais fayu yàlla amul fu muy yem a amal solo boo seetee moo tax moo tax ku ci nekk sa dund waaw nga ba gas teen exactement tey teen boobu nga gas képp ku ci root ëllëg da ngay am bénéfice yi da fekk si ñoom exactement macha production fraise bi daa mel ni voilà voilà li mooy production fraise bi de ma production fraise bi fum toll ni mi ngi si euh, euh, pratiquement mu ngi ci produit en période période de production pratiquement boo xolé ba xol heure bi ni c'était pas censé à ce que nga am nga am une production machallah parce que ñu ngi si euh, ñu ngi si en base en bas de saison mais gis nga ba tay ji ni so xolé ba xool

mom non la ko soxlawee donc soxla bobu daf koy permettre à ce que yaa deg dégg la soxla nga nga nga suuxat ko ak ak xol mu war na ne que ne sëgam yaa jox ak xol man tamit. mën naa la delloo voilà mën naa la ak xol. Mhm. loolu moom moo tax. macha allah mais est-ce que yang koy commencer di commercialiser li wa bien sûr ñu koy commencer di commercialiser. Mhm. ñu ngi commencer di commercialiser euh, fraise bi pratiquement il y a pas mal de personnes qui sont en week-end en général, surtout à Dialaw. Ou soit il y a certaines aussi, euh, les hôtels donc, du coin, qui sont venus, donc euh, nous demander en fait, euh, madame, là, comme production. Nous proposons là, nous comme, euh, comme, hmm. comme production des paniers qui sont pour les alimenter, donc, euh, sur, madame, si tu as des fruits comme papaye, comme carassol d'ailleurs. Voilà, comme papaye, comme carassol comme euh, comme fraise. Mhm. comme légumes, ak euh, ak yenen li nga xamanteni ni am nañ ko comme euh, comme espèce. Machallah, mais fraise bi moom man daf ma jaxal quoi léegi par exemple. waaw Fraises bi nii. Mhm. mën nga ci cueillir ak production bi ni par exemple. Mhm. mën nga ci cueillir jusqu'à combien combien. combien de kilos là déjà euh, semaine passée dañuy cueillir ba on a cueilli jusqu'à 25 cinq kilos de fraises. et que tu vois cet espace bi. l'espace ne fait même pas pratiquement ne fait même pas près de 150 mètres carrés ou peut-être minimum, minimum. Moins de ça. Mm-hmm. Parce que ça fait même pas 150 mètres carrés ou 150 mètres carrés. Mm-hmm. Maximum. ça, en tout cas, entre 150 à 130 mètres carrés que tu vois. Ce Kholebokol, en fait, euh, pratiquement, si euh, Bini récolté ça à 25 kg On l'a arrêté parce que de nous récolter, finalement, le nous avons transformé automatiquement en jus. En jus parce que tellement que récolte bien en fait dafa dafa voilà voilà donc dafa bari et tout ça donc l'olive, yëpp lu wax normalement à cette période là donc waroo am sax euh, nouvelle germination de fleurs parce que. Ah, parce que ñi gis yenen domi yi. exactement yenen domi yi exactement yenen domi yi yenen yeneen fleurs yu génnaat yu bees et tout cela voilà donc lool moy li nga xamanteni motax limay wax rek lepp loy def rek def ci ak xol. mais def ci ak xol bu lap mais def ca xol bu yaatu su ko defee yàlla defal la ci li nga gën a bëgg lu nga xamante ni moom nga xaarul woon ci li nga doon def. macha allah macha allah voilà ñu ngi fii tey ci tubaab jalaaw ngeen gis lu intéressant li Babacar di expérimenté fii. mais aussi ñu gis ni am na yeneen toolu xooj yoo xam ni tey dégg naa ni. Mhm. parce que suivre nañ la gis nañ tey tubaab yi dañuy jógee ba bitim réew ñëw di la defal ay reportage loo xam ne tey nit ñi xamuñu ko. donc mu mel ni à l' international lañ la gën a xam. que mhm. fii comme li ñuy wax rek nul ne prophète chez soi. voilà <laughs> effectivement mais vraiment loolu ñu ngi la ci encouragé bu baax. merci beaucoup gis nañ tamit yaa ngi def ay académie yoo xam ne tey. Mhm. maanaam période la yoo xam ni ay xale dañuy ñëw fii nga leen di jàngal bay. Mm. voilà comment ça se passe yooyu ba nga xam ne tubaab yi qui def ba am contact ak yow bay ñëw di voilà que ku dégg tubaab jalaaw xam que une zone vraiment touristique. Mm-hmm. et que euh, comme le tourisme vert comme on dit a une importance pour l'avenir de l'Afrique. et moi j'en suis conscient personnellement. et que tu nommes le yenn ci ay euh, euh, tubaab ñëw yaakaaruñu ne woon ne que ne Afrique am na kenn ku nga xamante ni mu ngi góorgóorlu ba di jagal lu ni mel c'est comme ça de fil en aiguille la ñuy waxtaanee ak euh, ay seen ay nit ba pratiquement am na ay euh, pratiquement ay chaînes allemandes euh, marocaines françaises yu nga xamante ni ñëw nañ fi pour ne pas citer de nom des membres de ces chaînes-là, ça n'a pas peut-être oh, de Voilà, <laughs> donc, euh, euh, je, me dis que si vous me permettez, si je demain comme euh, euh, une, une, une, une, équipe comme Canal Plus, Canal Plus déplacé donc de France jusqu'à ici pour tourner quelque chose c'est quelqu'un, euh, c'est pas parce que, bon, peut-être moi je suis petit, mais la chose qu'ils sont venus filmer, elle n'est pas petite. Et que Taïdini, L'État peut-être ñu def et que bi ils étaient vraiment étonnés parce qu'on les a parlé de ça de fil en aigu. et que l'autre a que nous concrètement dit hall dit et tout cela le gars même qui a créé une technique euh, qui s'appelle le polytère Philippe je le salue de passage. En fait, j'ai eu sa connaissance pour le vieux d'un Momo de Lamine Salle, mhm. qui est son représentant en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs même, ils, ils étaient vraiment impressionnés, euh, émus, et que l'UNIDEF, et que d'ailleurs même, tout à l'heure, nous sommes dans nos annexes, mhm. annexe 1, annexe 2, et que même temps aussi, à y une ferme qui a accompagné Séné et Borom de euh, l'indé aménagée, parce qu'en fait je suis consultant international des techniques d'aménagement de fermes intégrées. Donc euh, là en ce moment, et d'ailleurs récemment, je dois partir vraiment euh, dans une grande conférence qui, qui va se tenir à Bruxelles pour participer dans cette conférence-là et qu'il n'y a pas longtemps que je suis revenu du Congo pour cette base-là. Et que pour dire que damay ñaan Sénégal solennellement dans dans tes dans tes antennes. Hmm. pour les dire que une découverte peut-être mais si toutefois que ñeneen di may jël di may jariño Sénégal mo len gën yey. mo len gën yey gën yey man je vous dis que ne je suis open je suis dans l'ouverture et l'enracinement comme disait Senghor. Mm-hmm. maa ngi seen pegg man sen dom pare pour à ce que ñu défar Sénégal Sénégal mu don Sénégal jéggan maa ngi si seen kanam du ma ne maa ngi mais maa ngi si seen kanam si loo ma wok ma xuri leen ci ci wàll yu bu dee la man nañu liggéey ba fa Sénégal di gëné ci aduna bi loolu moma ñor Sénégal jëggan ci kanam ci lu ñuy wax euh, en tout cas euh, euh, l'emploi vert dans le Sénégal je suis partant et je sais qu'il y a une solution par rapport à cela et je suis prêt et je suis en train de faire peut-être des résultats et je suis je suis en train de faire et bëgg na def lu gën loolu et pare pour ànd seeg yéen ñi nga xamante sama mbokk Sénégal bëgg ngeen ko def te pare ngeen pour def ko ñu ànd si def ko defin wu gën parce que ñeneen ñu ngi koy ut si ci man te Sénégal moo ko gën a yooyoo maa ngi leen di xaar vraiment maa ngi leen di xaar. jaajëf ci noonu la jógee fii dem ci annexe yi ngay wax. exactement ñu xooli ko. Mhm. donc ñu ngi ñëwaat léegi léegi incha allah. donc gis nga four bi pratiquement tous les matériels c'est des matériels de récup. mais mais exactement buntu pratiquement ba uh-huh. ce que donc dama ak une fenêtre <laughs> ambiance bi maa ngi rouge. rouge pipe. exactement dama jël ñax bi laa jël ñaxu ceeb ak ndeefu nag moom laa jël jaxase ko boole ko compacté ko ba mu ba mu kii modelé ko ba mu ba mu baax moom laa exactement moom laa ko defaree voilà moom ma nekk comme ciment bi ba pare non seulement euh, moom mën na condenser ba 400 degrés de chaleur de pression oh. ak solaire wala non pas ak solaire euh, fii en fait en fait ak solaire parce que ak solaire la mais ak gaz gaz ak gaz voilà mom la do def def de telle sorte que montel ko ak une brûlure à gaz bu nga xamante ni soo ko taalee donc dafay à ce que euh, maanaam da ngay gis ne que ne nu muy ni muy euh, son maanaam son activité à ce que day condenser en même temps aussi créer que benn thermomètre bu nga xamante naturellement damay xam le degré de chaleur. donc voilà sur ce tableau là. jox ma une pression de chaleur la à partir de ce tableau et tout cela. non non non <laughs> non mais comme les meilleurs quoi donc euh, l'ingénierie en fait madame dépend faut juste voilà donc euh, que donc que je dis que euh, amul lenn tey pour man. Hmm. masuma dem ci ben boulangerie pour jang fa lu défaré farine. mais pour man tout ce qui est farinable man pour man il est possible à ce que ñu défar sur du pain man c'est ça que je dis. lépp lu ñu mën a def farine mel ni dugub. lu melni dugub dañuy defar tey jii nii dama defar naa dugub. Euh, euh, euh mburu mburu dugub. mburu mbokh mburu ñambi. Uh-huh. mburu patasse mburu euh, pratiquement euh, euh, mburu tu vois et, et que pour vous que c'est bien possible c'est bien possible y a rien qui est impossible pour de faire lepp lu kenn def ci il est possible à ce que yenen nit mën ko l'essentiel moy nga djem rek. djem djemal moy solo aussi. allah ay dend la. voilà li ay dend la. les la donc local. aussi voilà cher aussi. local cher donc moom la ñu doon euh, dañoo collecté lu nga xamante c'est des femelles. Mhm. ak boole leen ak quelque part pour faire au moins ñu am suñu propre production. parce que commencé à produire. waaw commencer nañ produire et d'ailleurs même en fait euh, génne woon nañu suñu première bande de production et que sous boobu ñu ci am moom la ñu jaay doo tey jii à ce que ñu ngi defaat aussi tamit beneen production bu bees. yaa ngi dégg bu bees pour à ce que ñu pré ñu di préparer yeneen euh, yeneen saison yi quoi. mais defal ko production boo xam c'est destiné à la viande la viande si parce que amoon naa ku nga xamanteni c'est une producteur euh, une produ maanaam euh, kenn bu nga xamanteni sama benn client bu nga xamanteni mo don doon jaay ay grande surface fi ci dekk bi ño xamanteni man ma don préparer d'ailleurs même euh, les poulets fermiers yu nga xamanteni man maa ko doon def ak des dindes yaangi ngi ak canard yo xamanteni man maa ko doon man maa ko doon man maa ko doon produire ba pare abattre jox ko moom mu la dem jaay ces grandes surfaces là voilà voilà macha allah xool beneen box bi voilà donc euh, fii euh, ñu ngi fi am benn euh, benn mal paon uh-huh. voilà bu nga xamante ni c'est une belle bête. vraiment surtout waa dafa rafet mais non seulement ta bi mais dafa am ngëneel. Hmm. tu vois ah, lu bëri bari, bari, bari comme secret. macha et que vraiment njaboot lañu gu sax ci man. Uh-huh. yenn yi sax dama ne parfois <laughs> dama naan yàlla mu yàlla baal. Hmm. mais je préfère yéen a dal sama doom. sama doom yi wax ma lu leen daal moom mooy gën a mooy gën a yomb ma que ne mu dal sama ay mala kooku éleveur yëpp la éleveur yëpp la éleveur yëpp la voilà parce que ñoom dañuy bëgg mala tellement ba nga xam ne exactement lu leen métti rek bon voilà quoi léegi xaaral ma installé la si sama keppaar gi sa njowaan bi sama njowaan gi fii mooy sama bi <laughs> mooy sa pexlukaay waaw sama pexlukaay la maa ngi ko maa ngi ko maa ngi ko tuddee euh, euh, keppaaru ko keppaaru xelli xelli xam xelli xam waaw loolu olof bu xóot la de olof bu xóot la waaw maanaam boo déggee mën a keppaaru xel li xam maanaam lu bëri dina tàkk te gis naa ay nit ñu bëri nekk bureaucrate war a lijjante ay projet yu bëri war a bind war a xalaat war ko dëxanci kayit dañuy am difficulté pour di ko comme sunu genre cinéaste pour bind film voilà dañuy am problème mu xalaat exactement donc fii pratiquement lu bëri lu nga xamante ni bëgg naa mu taxaw

Euh, Salim allah donc am une situation vraiment euh, importante et vraiment capitale sur ce plan. et que gis naa ci njariñ et que damay wax ne que ne ku ko mën na def bu bañ laa sori. dina menal. a dina dina dina génne lu bari. waaye dina jotale si lu bari. ci xalaat ak ci vraiment c'est c'est c'est capital. macha allah yaa ngi doon wax fii mhm. euh, gis nañ fi benn teen foo xam ne tamit wala Cheikh Omar Fouti yu jaar mu mel ni Cheikh Omar Fouti yu am ngeen benn am ngeen benn connect connexion oh. tey mun naa ni boo xam ne tey inspiré na la aussi ci lu bëri loolu looñu ci mën a loolu ci mën a voilà en tout cas wala da ngay bàyyi dem ci euh, puits bi euh, touché nga fu bon mën naa ni que ne puits bi nga xamante ni fi ñuy wax ne teenu Cheikh Omar la mhm. mu ngi ci biir dëkk bi mhm. mais euh, li nga xamante ni moom am comme Ten bu nga xamanteni pratiquement manko manko gassal sama bop uh-huh. et que li ci gëna yeme en fait teen bi il est sur 9 mètres. 9 mètres. c'est pas c'est pas profond ça. c'est pas profond et que li ci gëna a manam moy j'ai cherché 9 ans cet environnement cet espace. ce lieu ce lieu là. 9 ans 9 ans de cherche. et que. li ci doy waar mooy dama dajeeg nit ku nga xamante ni korog laa gëj a gis korog laa mas a dajeeg moom mu ne ma liñ la wax ne la demal nga wari ko demal nga wari ji ko makkaan mi nga xamante ni di sori géej wala en tout cas du sori géej wala tur ba dañoo tudd géej tudd ko. ma ne nag léegi jeex na euh, euh, noflaay puus na euh, doxi ka nag taxaw na. si laa koy wër di ko wër te juguma rek wër si ko fi dama ko wër fu nekk wër naa ko si jéeri gi wër ko ci joor gi ba yàlla def ma yegg si fi fekk bi ma fi yeggsee gis naa li tax xam naa la tax ci la lu ma bëri leer sama digganteeg sama maam ju tedd jooju du maam Cheikh Omar al Foutiyou et que ci loolu maa ngi euh, nuyu Thierno Madani Thierno Madani Tall di ko wax ne sa doom ji sa taalibe bi mu ngi lay ziara ndax euh, mu ngi may taxaw ci lu bari di aussi di nuyu xalifa bi mm. euh, euh, di ko Thierno Basir di ko ñanal yàlla yàlla may ko fan bu gudd ak weer ñoom ñëpp incha allahu rabbi et di wax ne que ne donc ci loolu laa jotee ci li nga xamante ni moom la ma yàlla defal ci barke maam Cheikh Omar tey ji nii lépp lu ma fi def rek mu baax ci barkeem la et diwaan bi mën naa ne que ne keppaaru Cheikh Omar la alhamdulilah rabbi alamin mënoon na ko jaarale ci keneen ak ñeneen. ak uh-huh. feneen comme li mu doon wax rek yàlla na ko yàlla may geneen maanaam yàlla ko yàlla may njaboot goo xamante ni dëwul rek ñu sant taal. Eh, loolu tey jii nii yàlla def na ko yàlla def na ko te man mii gëm naa ko. te tey lu bëri loo xamante ni mënu ma ko wax parce que par immunité mënu ma ko wax. voilà voilà donc mais. xamnaane que ne ci ndimbalam la ma yàlla di baaxalee alhamdulilah rabbi alamin merci beaucoup touché nga foo xamante ni c'est un cordon vraiment sensible et que du lu may faxal di bëgg a wax mais comme euh, li ñuy wax ne que ne doo ko bañal ndax fa mu jaar ak yow ba yegg si fa tax na doo ko bañal lenn ni exactement en tout cas euh, chapeau à toi et que ma lay wax ne la que ne euh, Fall Ndiaga Yaram mm. merci vous êtes venu à son heure. Ah. Et l'heure est vraiment, vraiment présente. Et même je te dirai, je ne cesserai jamais de te dire merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur vos antennes et de dire ce que j'ai envie de dire. wax li nga xamanteni moy mooy buy jariñ ci jamono bi nga xamanteni dañu ko soxla moo ñu gën wax budul jariñ te xalaat buy jariñ nek fi kon yalla nañu yalla di may xalaat bu nga xamanteni dinañ ko mëna wéccio ak suñu nit ak jaamu yalla yi ba nga xamante dinañ ci mëna a waye yalla buñu wax lo xamante nit ñi dinañ ci xébé et eh, que alhamdulilah rabbi alamin et merci beaucoup encore. machallah allah suñu émission jeexagul dañuy dem xooli annexe yi. exactement xooli yeneen tool yi. voilà xooli yi nga tool yi nga xam tamit yaa koy xolal sen borom. wala yaa ngi leen di orienté tey par par exemple ñu mëna xawa am lu melni ni li nga yor. Mm-hmm. donc ñu mëna dem fofu mais effectivement donc mëna ñam xol exploitation yoyu comme ça bu ko defee ñu mëna xam lan ak lan lañ fa def ak fuñ ci toll. inshallah exploitation. Euh, fan voilà donc euh, euh, exploitation donc ci exploité mhm. pratiquement donc Cheikhou Gueye je le le responsable technique en fait je la délégué pas mal de choses donc pratiquement annexé. donc fini euh, pratiquement ñu ngi fi def euh, so euh, pieds de tomates 26 000 pieds de tomates pratiquement nous avons nek pratiquement so xolé ba xol euh légui tay période de production Nous avons commencé la production fu donc euh te souf bi so xolé ba dañu ko <laughs> maanaam dañu ko bàyyi woon kenn produire si. waaw parce que mënuñu si produire. exactement soo xoolee ba xool gis nga da ngay seen xeer yi ci biir. pratiquement euh, fu ñu nand faay fay loon goo xamante ni xalaatuñu woon ne dara mën na fee sottee. parce que dafa xaw montagneuse. Euh, voilà da montagneuse rocailleuse li mu boolee dafa bari quoi ci loo xamante ni donc espoir amu ci woon. Hmm, mais suuf bi ni mu mel.

Euh, pratiquement te mënuñu am te te ñun ñu ci defar lu ñoom lu leen jaaxal pourquoi pas ñom seen suuf bu baax bobu non mënuñ ci def lu nga xamanteni ni. comment gérer exploitation bi pratiquement moom ak c'est euh, moom ak euh, moom ñi nga xamanteni donc euh, ñoom ñoo nekk si euh, si ak ak ak les techniciens de surface. ok voilà. est ce qu'il y' a une manière particulière de de de tey exploiter les nii est ce que am na leneen lu muy laaj lu xam day laaj ñu jaxase ko suuf peut être benn préparation pour mën am résultat bii rek. waaw parce que xam nga souvent la plupart du temps moom mi sax da ko jaaxaloon parce que euh, du lu nga xamante lu mu meen ci mbay mooy mbayu conventionnel la moom la xam.

dañuy boole parfois ñu ndebal ko gis nga di nga gis ni ay saaku nii saaku yi fumé la donc moom la ñuy euh, voilà moom la ñuy moom la ñuy euh, pratiquement waajal donc pour def ko ci kii bi en même en même temps li nga gis ni comme quoi que ne boo xoolee ba xool da nga ci gis ne que ne parfois dañuy doon loo xamante ni dañ koy nëbal ci ginnaaw bu ñu ko nëbalee

manam amna cycle de vie buñ ko arrêté fenn ñun mën nañ ko jël joxat ko benen maanaam vie ci lool mom motax donc ñuy def ci ci cadre donc lii euh, espace bi ni donc dafa dafa nekk aussi tamit ci cadre ci voilà ci cadre de vie bu nga xamanteni cadre manam contrat d'exploitation la bu nga xamanteni comme fini nii actuellement donc ñu ngi koy exploiter la ku nga xamante ni donc euh, euh, pratiquement euh, l'école des sables euh, ci turu euh, Germaine avec son mari qui s'appelle Elmoud euh, pratiquement sauf si nous sommes mais exploitation donc moi personnellement avec mon équipe qui sont vraiment braves nous sommes extraordinaires. donc di extraordinaire voilà et d'ailleurs voilà exactement et que fi mhm. c'est la première fois que nous sommes exploités. et que là nous avons des dem ci donc on l'a foofu donc en termes d'exploitation un espace boo xam ci contrat d'exploitation. voilà puis pratiquement donc euh, en ce moment nous ñu fi euh, pratiquement ce qu'on ba xool léegi euh, ci cadre même si même cadre bi. Mhm. cadre donc contrat d'exploitation, nous bu nga xamante ni la ñuy defal donc école des sables. Mhm. ak ci turu Germaine comme li ma Germaine ak ñi son mari Helmut pratiquement gis nga fini il y avait avant tol bi mi ngi existé depuis plus de 20 ans donc avant lolu ñu ngi doon jéem mais li ñu si doon donc pratiquement so xolé ba xool demewul won noonu depuis tey jii nii bi ñu ko yoree et puis tout cela ñu ngi ci def. et li ñu def tey jii nii donc permettre nañu à ce que tey jii nii donc li nga gis nii kanja la. kanja la voilà fu mu toll nii explosion bii nii ñu ngi fiy exploité lu ñuy wax kanja.

engrais la pour euh, euh, engrais. Mhm. Euh, chimique. waaw amu ko. ñax mi yëpp dañ ko xam nga temps bi moo nu ko moyul sax mais day war a day. dëgg la waaw en plus gis nga ko ni commencé na. génn génn waaw. Mhm. ak trois jours yu nekk dañ koy récolter. chaque trois jours yu nekk dañ koy récolter. am na engrais les kaani pavron la boo xamante ne bii fin de carrière la nekkoon. Mhm. mais instant bi ngeen fi no noonu. moo tax lu bari xam nga fekku leen ko mais des na tuut tamit si kanam boo leen fi ñëwee. incha allah di ngeen gis. production wa xamantene bi dal ñu ngi avancer waaw inshallah inshallah inshallah tay par exemple yow sa liggéey fi journée bi ñaata yoon nga fi ñëw pour pour exploitation bu toll nii pour exploitation bu toll nii journée bi man naa fee ñëw deux fois trois fois yoo xamantene bi daal parce que tool ni mi ni mi ça dépend daal sama dépend ci yow d' accord ni muy demee parce que da ngay jógee fii dem parce que dañuy gérer ay tool tool yoo xamante ne bii yoo xamante ne bii daal yëpp sa responsabilité Babacar daal si lay mhm. nekk. tey noo gisee liggéeyu Babacar par rapport ak jeunes yi fii ak encadrement bi comme yéen nu mu leen jëlee yow nga jógee fa côté Pout nii di liggéey ak moom. Mhm. tey ban njëriñ nga jàngati loo jàng naa si njëriñ bu bu yéeme daal ndax li ma si jàng lépp góomoo ne mën naa toog fii sax di ko répété par benn parce que bay mii tey jii d' accord miin naa bay xam naa bay waaye mbay mii nii nii nii nii maa koy doog a jànge si moom te bi ma ñëwee jàng ko wax dëgg yàlla ak yonte gis naa si loo xamante ni bii lu ma yéem la daal lu ma yéem la te it mbay la moo xamante ni bii tamit lu asta comme nu koy waxee noonu extraordinaire merci beaucoup mbay mu mbay mu yéeme la daal loo xamante ni bii eh, eh. parce que mbay ngay liggéey te moo engrais tey ji am na ñoo koy wax tey ji duñ ko gëm te nga gis résultat te nga ciy gis résultat boo xamante ni bii man nga koo gis sax résultat nga nga gis résultat boo xamante bi sax doo ko gis si engrais bi ngay engrais di përé di përé chimique. chimique dëgg la. waaw tey bu ma ko waxoon tey jii ko gëm. mais dama ñëw si terrain bi. dund ko. waaw dund ko ak moom bi ma fi doog a ñëwit defoon na ma kaa wax dëgg yàlla mais bi ma demee ba sa biir it. Mhm. li naan ragal yëpp yàlla la mooy waxi dëgg. dëgg la waaw ma ànd seeg moom tamit mu doon koo xamante bi wax dëgg yàlla it ku neex a àndal. waaw mu doon koo xamante bi ku ku neex a jëflanteel wax dëgg yàlla ak yoon mais est ce que ci wàllu kom aussi yaa ci gis sa boobu. bien sûr. waaw parce que maa si li ma yaakaaroon li ma si yaakaaroon bi may ñëw si moom damaa ñëw fekk si sax lu ëpp loolu. Babacar léegi ñu ngi ñëw ci presque jeexut émission bi. voilà tay ñu ñëw xool beneen forme d' exploitation. exactement bii mooy ban façon exploitation par exemple. bi accompagnement bii exploitation d'accompagnement accompagnement la. Uh-huh. donc euh, sama xarit bu ñuy wax Alpha mom mom ferme bi. Uh-huh. et puis euh, euh, ñëwoon nañ fi ay jamono ñu xool situation de possibilité d'exploitation bi. et que def étude quoi. waaw def étude yi ma nekk c' faisable. donc c' est faisable après par la suite nous avancer sur l'eau. ba muy dem perd du temps. et temps bi il faut déjà commencer. Euh, voilà il faut qu'on commence et que temps bi nous nous dem. Mm-hmm. et puis euh, bi ma nous ñu mujjee quoi ak al waaw mané saway ma dit <laughs> voilà euh, après par la suite nous la commencé nous commencé du citronnier commencer commencé implanter ah non avant citronnier cocotier d'abord pour allée bi après commencé euh, du citronnier pour l'implantation. bi am indi commencé des pépinière ou pépinière ou salade bi commencé à et tout cela fu après en même temps nous commencé aussi établir euh, euh, établir goutte à goutte pour préparer tomate tomates poivron poivrons kaan donc pratiquement on la a établir ci

en même temps aussi euh, na légèrement ban. mais du ban bobu ñu du ban bu bari bobu quoi. mais mo ëpp douceur xam nga su amé ndox. et tout cela donc pratiquement euh, souf la bo xamante ni boo xoolee ba xool bu ki la quoi. d'accord voilà donc. Euh, kon ñu gis Alpha après soo ñëwaat ci yow. am na problème. laaj ko ay impression. Euh, grand Alpha.

comme femme de ñu ici, donc chaque année nous ñëw au moins trois ou quatre fois dans le cadre de mon travail Je naa fi entreprise boo xam en damay def consultance mais ça n'a rien à voir avec l'affaire au bail. ouais quand même. mais bon toi bi par hasard le la ñëwee je man jënd depuis 2016 presque exploité ñu defuñu dara à partir de. je pense bi ñu ma présenté Babacar fu ma tourné rek. waaw tool bu ma visité. Mhm. di laajte ay façon garab bi baax na wala baaxul. baax na fii waaw xam nga. si dina dox wala dox fu ma dem rek dina mais yow da nga war a gis ku ñu wax Babacar Diop. waaw benn jour ma ñëw kër ga ma <laughs> ne ma xaritu Ousmane la Ousmane mooy électricien ba léegi. si moom mooy installé panneau solaire. waay mu ñëw yóbbu ma kër Babacar ça fait quatre ans. vraiment bi ma ñëwee gis kër gi gis ne laboratoire la. mu ngi def expérience yoo xam ne man xalaatu moon sax dina am Sénégal dina am Sénégal waay cultiver pomme quand même te bi ma fay ñëw pommier bi mu ngi doon joxe ay ay doom ak poire ay poire mhm. donc et puis chaque jour mooy encouragé nag non affaire bi bul xaar il faut nga démarrer démarrer même bu dee ndànk sa démarrer parce que looy gën a xaar di gën a perdre sa temps fexel ba am ndox boobu dafa moon forage forage bi deux ans ñu defar forage bi bi mu ñëwee tamit mu ne ma non affaire amul xaar il faut ñu installer euh, aménagé tool système goutte à goutte bi goutte à goutte bi installation yi moo nekk nii ñu ngi ko def euh, si semaine bi passé ah mhm. jeudi xaw ma vendredi semaine bee passé si lañ installé cocotier yi cocotier yi donc installé citronnier yi donc euh, corossol yi waaw dèjà hier def nañ parce que cent yu implanté donc instant yi xam naa si semaine bi si la ñuy def suñu le piquage quoi. le piquage machallah. tomate. Euh, euh, oh ça prend forme quoi. Hein. vraiment ça prend forme. ça là, forme depuis deux mois, ma ne ko bu njëkk prison laa parce que j'étais entre quatre murs. <laughs> mais tey nan nga gisee tey accompagnement wu Babacar par rapport ak yéen ñi nga xam tey yéen a bëgg a dugg ci monde agriculture. mais moi, je suis quelqu'un de très pragmatique parce que sama liggéey xam nga ñun gestion axée sur les résultats loolu mooy suñu liggéey quoi. Mhm. dans mon vrai travail. donc su ma déggee kuy wax kese du ma la faale il faut ma gisal sama bopp il faut ma gis li nga réalisé donc bi ma ñëwee visité xool Babacar lu muy def visité ay ferm yu bëri moom am na ay ferme yoo xam ne peut xaw ma ndax jaar ngeen fa wala jaar leen fa. Hmm. boo ko moomal boppam. am jaar bëri yoo xam ne moo leen exploité moom leen te ñooñu ko moom man wax nañ laaj naa leen seen impression avant sax may commencé liggéey ak Babacar te ñëpp vraiment li ma wax mooy li am ces résultats en six mois ak ah, Babacar amuñu ko en En plus, moi, je suis là. Donc, je n'ai pas hésité une fois à, à, à collaborer avec lui. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, parce que... Parce qu'il y a mon pays. Ça va être un bon pays, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis là, je suis là, et puis, je profite aussi de l'occasion de lancer appel. Je sais que nous voulons... Sauf ce métier, que ce soit un tol qui manque, un tol qui est un tol qui est agriculture urbaine. Ah, Rapprochez-vous aussi, nous avons une expérience comparable. Kan? Mm-hmm. Parce que les blogues, xam-xam la xam nga. volonté la volonté la aussi donc c' pas parce que comme sama genre gi doo xool ay vidéo YouTube pendant presque six mois nga foog ne expert nga quoi. si à un moment donné il faut nga boo bañ a xaalis rapproché wax ay vrai professionnel yu mel ni ñoom Babacar quoi. macha allah et puis tam yàgg naa seetaan say vidéo hmm. vraiment Ovision man si abonné si la bokk. nga bokk <laughs> confinement bi Bruxelles. Ah. mais mën naa ne chaque jour su ma gisee vidéo sax ma lay au ça fait deux semaines. vidéo dugul vidéo dugul <laughs> <laughs> dama pressing. dina pressing parce que boobu. maa ngi bëgg di yokk sama xam-xam si. si élevage bi ak dëgg la dëgg la yéen tamit bokk nga xam ne ñooñu. Mhm. motivé ñi nga xam ne ay néo agriculture lañ. non non <laughs> non amul néo néo amul agriculteur rek moo fi nekk. mais bon yàlla baax tey looy tëjee tey. et puis dama kontaan parce que. depuis bu Babacar dama si gis. ben stagiaire Congo ah oui oui vraiment te xam Congo ñu ëpp ndox ñu donc kooku dinañ ko parole bi mu tes impressions par rapport à. vous pouvez vous monsieur vous pouvez vous présenter et nous donner vos impressions et puis depuis combien de temps vous êtes ici pour pour pour, accompagner Babacar et, et l'accompagner comme étant stagiaire quelles sont vos impressions par rapport à ça. Ok, premièrement, à ce qui me concerne, je réponds au nom de Mboura Je viens de la République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays, dans la ville de Goma, c'est au nord Kivu. Dans la ville de Goma, c'est au nord Kivu. je me suis connu ou croisé avec Babacar, c'était à Goma dans une foire internationale qui a été organisée par Trédassure de Maman Esther, c'était une fois sur les jeunes entrepreneurs. Et par mon allocution, Babacar et tous les partenaires qui étaient là, ils ont été impressionnés, ils ont apprécié beaucoup. Et Babacar m'a offert euh, le privilège de venir faire un stage ah, chez lui. Mhm. Donc il m'a accordé une bourse de faire les stages. Mhm. Et donc, je suis ici depuis les 13. Donc, j'ai quitté chez moi à Goma les 12. Mhm. je suis arrivé ici les 13. Et précisément, normalement, chez nous, ce n'est pas la même chose qu'ici. Les impressions que j'ai, nous, au Congo, nous avons une terre qui est humide, mhm. où il pleut chaque jour. Mais ce qui fait du mal est que l'agriculture est un peu abandonnée chez nous. Mais ici, c'est une terre vraiment aride sableuse, vraiment c'est des heures et puis on produit beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le système ici de goutte à goutte, qui n'est pas aussi chez nous. Mhm. j'ai appris comment, installer le goutte à goutte. Et vraiment, j'ai hâte de rentrer, chez nous à la maison et pratiquer tout ce que Babacar est en train de, m'apprendre ici au Sénégal. En tout cas, et je dis aussi merci Alpha, à Alpha <laughs> qui a permis que nous puissions être dans son exploitation. Voilà, <laughs> <laughs> c'est un Congolais de Bruxelles. voilà, ça m'a fait du bien vraiment de faire connaissance avec lui. Je dis merci à tout le monde. Vraiment, je suis bien accueilli au Sénégal, ici à Dakar. En tout cas, Vraiment, je me sens comme chez moi. Donc, je me plais de rien. C'est l'africanité. En tout cas, vraiment, il n'y a pas de différence. Donc, je suis bien, bien, bien accueilli dans tout. Machallah. Vraiment. Alpha, ce dernier mot ben, Voilà, nous sommes petit Babacar. remercier, de remercier Ekibi, surtout. Moussa. Moussa. De remercier Siahou, mon commando uh-huh. commando là. et puis uh-huh. gars yi je lekk. 19 heures là ñuy lekk. moi, vraiment. di ma la expliquer. Hmm. comme tey am nañu chance su fekkee début aménagement yi. donc dañ leen joxaat rendez-vous rek. waaw prochainement d'ici quatre mois incha allah xool progression bi. comme ça am suivi euh, bi xam nga suivi bi quoi. incha man daal rendez-vous laa leen jox euh, incha allah si fan yu ñëw et ñu xool affaire bi nu muy nu muy transformé wu ko merci jërëjëf. Euh, mooy la 1 fii bi ma koy tàmbali euh, Ousmane Bële. Mhm. il peut m'en tenir témoin bu garab yi bañ koy samp am na yoo xamante ni man ak moom ñoo ko ànd di doon samp. lii mooy Marafal Marafal voilà acacia de de donc fii bi ma koy tàmbali soo xoolee ba xool gis nga. c'est latérite la carrément. carrément fii pratiquement.

boobu eh, wax dëgg na yàlla sur cette colline là yaa ngi dawal sa oto ba ci biir ba ci biir nga daal di garé mais boobu sarettu mbaam sax mënu fi woon yéeg sarettu mbaam ah. soo ko yoroon ci suuf nga xëy bu garé nga dox ak sa tànk boobu amoon ay garab dëgg yu mag yu nga xamante ni donc fii c' est des c' était tout fait de maanaam de darbe épineux gis nga garab épine bala ngay séddale nu mu toll noonu uh-huh. noonu lay tolloon maanaam dañu demoon ba pratiquement ay plus de 3 mètres de hauteur wala même 4 mètres de hauteur c'était tellement épineux c'était inaccessible suñu génn suñu demee ba ci beneen côté bi ne di nga fa gis benn kii boo xamante ni di nga fa gis ay kii yu bëri yu nga xamante mm. donc euh, ay kii là, euh, pratiquement euh, ay ay dég la yoo xamante on n'y pensait même pas xalaatuñu ko woon parce que am na benn paa ndeysaan ba léegi dafa ma koy wax mu su ma la masaan romb ci àll bi dama ne damay ñëw ne sama mag sama rakk ji ah. nekk dof boole ma romb ci àll bi dof boobu balaa mu fay balaa mu fay sottal dara ah, gatam fa lay da gatam fa lay daggee quoi lii lii lii du kii euh, nebedaay waaw lii nebedaay la

donc buñ ñu sonal ak beneen am na beneen bu gën beneen variété gënul nebedaayu Sénégal. voilà donc loolu moom consoit clair là-dessus. macha allah voilà nebedaay bi lu tax ñu koy def si exploitation bi man parce que. Mhm. li mu efficace en termes de fixation d'azote. azote. ak phosphore ak phosphate loolu moom moo gën a yokk tax yaa dégg à ce que ñu koy euh, ñu ñu koy kii. d'accord mais tool bi daa mel ni agrume kese la ah. waaw parce que pratiquement li gën a jafe bàyyi. Mhm. ñu ne lii c' pas possible moom la ne xaaral ma def ko fi comme lu ñu xamante c'est pas possible mais pourquoi pas si n'est possible n'est pas possible. donc fii laa indi woon tubaab yi ñuy wax ne que ne nag vraiment yàgg ñu dox yàgg ñu gis. mais gis mosuñu gis ku ku ku yek ba ba tollu ni quoi. macha donc fi pax yi biñ koy gas dañ ko doon gas sax yaa ngi dégg marto ak banaay ngay jël. di dajji di waaw di dajji pour gas. donc euh, gis nga li tay di déjà li pamplemousse la déjà euh, bo xolé ba xol pratiquement c'était pas à ce que voilà on a parce que des variété pamplemousse gis nga actuellement pamplemousse bi dafa saf comme c'est pas la peine. voilà. te en plus pamplemousse garab yoo xam ne daan ëpp pour produire. waa une bonne une bonne une bonne une bonne question effectivement parce que garab yi bi produire déjà euh, euh, amuñu woon euh, au bout de deux ans garab yu commencé war a produire le début de production. trois ans trois ans et demi. déjà garab a ñu ngi commencé produire à partir de deux ans tu vois. C'est nga ni sucré c'est pamplemousse pamplemousse de de sucré comme orange c'est pas censé à ce que vous sucré quand même <laughs> donc pour te dire que euh, donc à chaque fois tu vois man bon le euh, euh, concret le concret Le le Les mandarine là mandarine la mandarine la bu nga xamanteni c'est une variété ma amnañu nañu benn pied bu nga xamanteni qui à un moment donné en fait dañu amoon euh, un rupture d'alimentation à nous mais mhm. c'est extraordinaire du côté bobu qui aussi benen variété la pamplemousse. benen pamplemousse qui pamplemousse là aussi le pamplemousse pomelo la mais bu nga xamanteni la peau fine bokole xoolee bokkul ak boobu bi nga yor non. Bi bobu bii moo gën a épais. bii moom boobu nga yor non mo gëna épais bii moo bii la peau fine. ba paré bi sanguine la. lu ñuy wax pamplemousse sanguine. Ah, donc xonk. xonk ba paré melni comme voilà melni comme deret ci donc c'est tellement bien pour un multivitaminé voilà. en plus. Euh, gis nga boo xoolee soo gis nga pratiquement.

man je dis que ah kan. dama ci dëndal Moussa Moussa li fokk mu <laughs> fokk mu extraordinaire donc tu vois mais fa yang commencé diko exporter wala di jaay au niveau de de Touab Jalaw hmm wala fan ah dox même de Touab Jalaw ah dox même de Touab Jalaw da nga am ay clients particuliers yo wa dama am clients yi nga xamanteni sax ñom ñokay ñew jël ci ci tool yi hmm Euh, am na benn client bu nga xam c'est un client fidèle moom pratiquement je koy ñëw jël pratiquement jusqu'à Dakar. Mhm. Et aussi j'ai d'autres clients qui nga xamante ni ben femme donc c'est ben école la de la place. Mhm. da koy yóbbu foofu di ko euh, tu vois et, et que ils ont même euh, dit que le citron bu ñuy jugee si ferme Babacar. Mhm. il est un peu spécial en termes de goût et en termes de conservation. Machallah. voilà.

tey je remercie tous mes collaborateurs euh, donc euh, euh, ñi nga xamante ni ñoom laay téyal ñi nga xamante ni ñoom laay accompagner si seen euh, ferme ku mel ni tey comme Alpha mhm. mu nga xamante c'est vraiment sa souplesse sa sa sa sa sa capacité son son son abnégation tu vois et que il pouvait dire que ne mais attends Babacar je ne suis pas prêt. Mhm. mais malgré tout cela lui qui boosté. booster booster booster finalement il s'est senti vraiment prêt et vraiment euh, intéressant et capital il a poussé vraiment au de ses limites pour vraiment euh, avancer avec man. Coucou, vraiment je le remercie donc je remercie personnellement donc les autres exploitants donc comme Germaine et Helmut et nga xamante ak et tout Je ah. euh, et particulièrement je remerciement spécial, équipe solide vraiment et brave ah. parce que chaque fois je euh, leen euh, trop ah.

tapalé ak yenen affaire yi donc ça n'a pas de sens àndul non non non donc liggéey ba paré après buñuy lek lek buñuy lek lek la buñuy lek lekk et tout cela am benn problème mais quand à liggéey nag moom la et sur le cadre de travail taxna actuellement ni en ce moment donc nous avons battu tout cette euh, euh, li nga xamanteni ni liggéey nañ ko bañu ñu toll vraiment je dis merci à mon équipe et que vraiment je pourrais dire moi, moi, moi, mais avoir moi, moi, moi, toute l'équipe ensemble, ils ont vraiment battu, ils se sont battus vraiment énormément pour que ce que nous yexifions et merci à vous aussi, merci aussi à votre équipe technique, à Samadou Moussa. Moussa Diop, et que Malay euh, tu seras euh, le bienvenu. Euh, en tout cas, à tout moment, à chaque instant, les portes vous êtes, vous êtes grandement ouvertes. C'est quand tu veux et que je vous en remercie énormément. Et vraiment, chapeau à toi et cette émission. Et je dis à tout le monde, likez, et aimez les vidéo, partagez les uh-huh. parce que euh, Fall euh, est quelqu'un qui il fait un excellent boulot. Moi personnellement, je suis dans mon coin et que beaucoup de Sénégalais peut-être ne me connaissent pas. Il s'est pris la peine vraiment de se déplacer sur vraiment presque 40 bornes ou 45 bornes pour venir mm en fait, pour vraiment gagner les gens qui Et chapeau à vous et n'hésitez pas vraiment liker et merci beaucoup encore. donc merci à nous cette année. mu émission découverte Nous sommes ci Toubab Dialaw donc kontaanoon trop pour seq yow waxtaan bi di leen jox dig daje ba beneen yoon xam dama koy yobul. Babacar Niang vous sax ak <laughs> jox ci yi bu baax. voilà à la prochaine.